Dakar de donner les résultats provisoires et au Conseil constitutionnel de donner les résultats définitifs. J'ai eu à faire ce rappel pour simplement rappeler qu'il n'appartient ni à un candidat ni à un camp de proclamer une victoire ou des résultats. Ce soir, les bureaux de vote vont parler. Cela reflétera le choix des Sénégalais. Espérons que ce soit dans le meilleur pour le Sénégal. ñëw nañu tey ni ñu ko daan defee at bu ne ñoo bu ñu sant yàlla julli ci sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw naa ànd ak soxna Mbare fii fii ci Fatick nañ ko daan defee ci centre Thierno Mamadou Sall bi nga xam may sant nag waa Fatick balaa may gën a si. lépp tàmbali. te fii la lépp di mujj. kon ñëw nañu ñu ko daan defee woote. Sénégal nag yàgg na di woote te ren jii. donte campagne bi gàtt na gis nañu yàlla def na sutura lépp jaar don ci yoon. tey jii woote jot na donc sénégalais yëpp jóg nañu depuis ce matin pour woote nañ ko daan defee ndax Sénégal réew démocratie

le présentant candidat mu ne dana ko toog Sénat toog te Sénat bureau bu ne am na ko représentant tey wala nga xool observateur yi ni ñu daanaka ñoo ëpp bureau de vote donc jógee nag ku nekk ci adduna bi jógee ci biir Sénégal jógee ci CEDEAO kon loolu yëpp day wane processus électoral bu transparent dañu ñaan yàlla rek mu demal ñu li gën ah, yi tànn ki nga xam ne moom lañ jàpp ne jiite réew mi te gërëmaat yi di ñëw kon nag encore une fois jërë ngeen jëf yéen waa Fatick. amul sa fay.